salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu di leen jëfal ku nekk di la jox sa wàccuwaay tey nag ah. tey nag c'est l'émotion parce que tey dama ñëw seet si nag tey sama mag sama mag goo xamante ne macha allah sama magu xol la su may wax ci moom tey mën naa ni sax émission mën naa ko bañ commencé noonu joie lay àndal ndax sama mag ju baax la baax ci man man ma conseillé macha allah mu nekk ci showbiz bi macha allah man li muy def trop mu nekk nit koo xamante ni ndaanaan la spécial kenn dootu leen ko présenté muy kan Pendo Diamant Noir Pendo sama mag sama xarit sama lépp ci man tey moom laa ñëw àkk nag ñëw seet si ko mu def rouge nag Pendo tey danger laa gis de. maa la wax loolu maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax a baax Fatou Mbaye sama rakk ji mm-hmm. maa ngi lay fay bu baax a baax mm-hmm. di nuyu waa sans limite mm-hmm. di nuyu waa internetu sans limite yi yéegi ñëpp waaye yow maa ngi lay nuyu spécialement ndax sama rakk ju baax nga nit ku normal nga donc loolu moo tax nag tubaarkàlla masha Allah ma di la ñaanal rek yàlla na defal jàmm di wax asalaamaaleykum di nuyu adduna bi yëpp di baalu ñëpp ak di leen baal ak di nuyu borom site bi tubaarkàlla mu mu baax mi kenn du moom tubarkalla macha allah. ki mm-hmm. lay filmé ba pare di la jox. <laughs> moom laa ko gisee. allah DG maa ngi koy nuyu kenn du moom ba dundal rek yow macha allah comme ni ma leen ko waxee rek nee leen tey ndaanaan laa dalal tey nag ñi ngi ci koor gi nag ku ne xam na ni koor ak artistes yi dina metti ci ñoom dina metti du metti parce que koor lépp day stop dañuy toog seen coin ñii di gérer seen sëy ñii di gérer seen i famille comprendre nga mu metti torop tey nag ma ñëw seeti sama mag ci mu wax ma nan lay dundee koor gi. waaw koor gi de Fatou Mbaye comme ni ko nit ñi di dundee rek toujours dañuy wekki pause yi daal di wekki xef yi daal di toog. dafa mel naturel nga def. voilà dina day metti day metti nag tubaarkàlla parce que defuñu dara nag tam. parce que moment bii ni ñu toll programme du am dara du mm-hmm. te man sax ah wax dëgg yàlla bu ci bu ci yàlla àndoon rek. Mm-hmm. waruma foon fekk nag foon fekk nag ci wetu mu see nag mm-hmm. dëgg neexul nag mm-hmm. waaw waaw waaw yërëm naa ko nag pendoo ci koor lañ nekk waaw ci bëggoon naa nag toog si wetam nag maa ngi koy nuyu sax bu baax baax moom laa waroon a njëkkee nag ah mbaarik fayaama ak gàmmu fayaama fayaama siini caam maa njogu me ngi géy naaru yaasin maar tubaarkàlla waa sama jëkkër jooju noonu tubaarkàlla waaw waaw dama ko nuyu di nuyu waa Italie yëpp nag tubaarkàlla heure ma faa fekk Fatou Mbaye waaw nga nekk fa di defar ndogu waaw waaye préparation bi waaye dara ba tey ñi ngi doog a tàmbali rek. Mhm. fii ba koor gi di am 15 mbaa 20. Mhm. mën naa yeewu gis ma nag ndax bëgg naa tepp tepp boo gis sax nag yurit ba da ciy baax. Ah. sama ji koor gi nan nga koy dundee monsieur nekk fee nga nekk fii nan ngay gérer famille bi lépp taxaw lépp def stop. nekk ci weer bi nga xamante ne weeru jaamu yàlla la. Mm. weer bi nga xamante ni dañ koo dëgmal suñu borom di ko delloo lim moom nan ngay dundee koor gi. waaw sant yàlla rek dañuy julli heure bu julli jotee ñu julli. Mhm. donc loolu sant yàlla la parce que chaque année dañ koy def donc wàññiwuñ dara. ndax koo xam ne boo añee 19 heures nga añ kooku war ngaa mën a woor. Mhm. du dëgg. Mhm. Mhm. soo añee par 19 heures ngay añ. man tàmm naa ko mënu ma koor mënu def dara. parce que 19 heures laa añ. wala 18 heures. gën kaa néew. ñi ko xam ñëpp xam na ne sama kër man heure boobu laay lekk. donc mën naa woo déranger wu ma. lim ñuy xawat déranger tuuti rek mooy programme dam dara du am lépp danaan tekk. waaw nga ne tekk rek bu géer ñu gaawul jàpp. mu ñaaw <laughs> Pendo gis nañ la macha allah reménage yu jub na temps yee yàggul macha allah sama mag ji nga def robb bu beige ma sa tataar ma say ndaak dooleel la. Mm. maa ngi fa woon man tamit sa sarak macha allah mu nekk loo xamante ni ñëpp la ko yéene. Mm. reménage yu jub Pendo sa diggante ki xamante ni mooy sa borom kër. sa digganteeg sa wujju ndax gis nañ benn vidéo boo xam mu ngi circulé nii muy sa digganteeg euh, xaas ak sumbulu nga naan ko sumbulu. xaas sama jaxase de. <laughs> taatu mbay waaw ah. taatu mbay xaas daal dugal na ma sumbulu sama waaj sumbulu sama xarit la nga bëgg a takkaloo xaas ñaareel non non non takkaloo ma xaas ñaareel de gis nga xaas mm-hmm. xaas daal mi ngi noonu man daal aw ma lu ma wax <laughs> en sumbulu sama xarit la xaas sànq nee naa sumbulu xaas moo ñu bëgg a jaxase nag te su ma toppee xaas sumbulu sama diggante ga réeroo dina ci am sumbulu ne fa réeroo ndax yaa ngi naan xaas da nga war a takk ndax yooyu xale yi da koy sonal non non kaay ma la te sumbulong ca laay ba sumbulong <laughs> ca laay ba toog man ma topp rek xaas pour man uh-huh. daal fa ma ko tegoon uh-huh. xaas dama ko doon bëgg def fi géwél dama doon bëgg xaar ba xaas jox ma ba pare mm-hmm. dafa nu ma waroon a jox ma bëgg ko faral noonu ba pare ma faralee pare ma wëlbati carte gi uh-huh. fa xaas xam na ne takku jabar yaa ngi dégg léegi indi na nag sama diggante ak sumburu réeroo réeroo am na ca réeroo am na réeroo am na kenn bëgg ko kenn bëgg ko non mooy arrêté leen nga naan wujj kenn bëgg ko ah. yow yow yow sama rakk yow nga xam nga ne nekk un euh, <laughs> yow doo dégg un yow. pourtant nag maay dégg un nag. boo déggee un rek booy nga sëyal. <laughs> booy nga sëyal nañu wax ci nañu wax non non non sama rakk ji du ma seetaan ngay sëyeeg booy. <laughs> non deux laa bëgg nag franchement. non deux war nekk sa Fatou ba nekk un yow. Mm-hmm. kër gi dafa wéet. Mm-hmm. nga ne fa. Mm-hmm. mu lay gis chaque jour nga di ko soxla barki Seydina Muhammad Daba Seck yow laa yow xal yow sax yow xam nga ne yow Daba Seck yow man yow xam nga ne man yooyu fereg yow ma <laughs> sa digganteeg sa wujju complicité bi ngeen am xale jigéen ñu bëgg ñu wujju ñi nga gis ñi ñëpp ñu am wujju ñi dañuy noonu seen wujj yi dafa déedéet na jaru ko nag tey yow yaag sa wujju ay xarit ngeen sa digganteeg sa jëkkër gis nga boo demee foofu fekk ci ko loolu yëre yi macha allah waaw secret bi lan la dafa neex xam nga lu tax mm-hmm. nopp dafa am solo mm-hmm. nopp dafa neex mm-hmm. du dëgg soo nobee ki nga bëgg yàlla dogal mu takk la nga nopp ko mu nopp la mbaarik faayaam ak ma gàmmu faayaam su weex da ngay da ngay c'est l'amour c'est l'amour uh-huh. du dëgg uh-huh. kër gu fi jaxasoo góor a ko jaxase mm-hmm. su ko neexee da koy neexal mm-hmm. jigéen ñi bu leen ragal kamoon leen down mm-hmm. wujje du dara bokk wërsëg la ndax nag yàlla bu dogalee nga wujje koo xam ne yow yaa ko mag wala mu mag la wa ilaa si góor ga lay dépendre ku góor ki li mu bëgg ci këram si farata ak fulla bés bu ko waxee yéen naa ñëpp kenn ku ne xam sa place ku ne day dama sekk sama est-ce yooyu ngeen di gis dabaa ko njëkk a jot ñëpp moom ko vidéo yooyu ba pare moom laa ko njëkk a yónnee moom moo koy estati sama wujju man moo koy estati mhm. du dëgg parce que nag addina amul solo mhm. àddina yàggul mhm. du dëgg su soxlaa dara moom bu ko laajee jëkkëram te jox ko na ma ko laaj man ma jox ko barke Serigne Babacar parce que maa ko fekk si nag muy aaw bu baax te jëkkëram gërëm ko sama kanam ma dégg parce que ku ma respecté wul sa aaw du ma dugg ci yow waaye damaa ñëw fekk jëkkëram teg ko ci place defar kër gu baax tubaarkàlla dugal ko ci mu ne non tegal ko oto muy daw lu sori kon kooku boo ñëwee da ngay topp ci ginnaawam muy xale bu yaru du dëgg mm-hmm. kon man du ma ñëw di wujjeeg di ay yëf mm-hmm. defuma yooyu nekkuma ci yooyu ñi koy def lan ngeen leen wax. ñi koy def dama leen wax ne leen nañ come on down amul solo amul mm. sens. bu mm. jëdu xëccoo. Mm. surtout que nga fekk si nit nga nekk ñaareel. wala nga nekk ñetteel. da nga faa fekk ay nit. Mm-hmm. ñañ fa fekk it neexul ku ne xam na ne kenn bëggul bokk sa jëkkër. waaye suñ borom bu dogalee dangay nangu. du dëkk bokk neexul sax. bokk neexul man moom ma gënal nga nekk si dëkk bi di doxaan ma di ko xam partout. takkal indil ma. ñun ñaan ñu ànd. moom ma gënal ngay doxaan ci koñ mbaa ngay doxaan ma di ko xam te léegi. maîtresse yi ñoo gën a fés ñoo gën a wane seen bopp sax ka wujjee maîtresse si ñoo fi ne di di si na ba ka def ay yëpp di wut ay kalaat yi. man maîtresse nga gis nag yow muy def loolu. non yow eh gel yi. Mhm. gel dong li sama naan nee ko dong. <laughs> wala ba gel dong. gel nga gel dong yi. Mhm. ñoom ñoo gën a mën a wane seen bopp ka borom jëkkër yi. Mhm. parce que yow dañ lay takk si farata yàlla ak sunnas Muhammad. yow nga gis koo xam ne duggagul ba pare di wujjee ak yow. kaa kooku am fit. am fit de loolu. léegi lan ngay wax ñooñu ñooñu li ma leen wax mooy ku yoddu sa xët alalu jàmbur boo ci bëggee jot doo féetal sa bopp du dëgg nit boo bëggee dugg comme par nga gis ngay doxaanante ko xam dafa am jabar nëbb ko nëbbal ba dugg waaye yow duggagoo di joué di ko gaaruwaale ko saari taraak ak di ko war ne ko man maay sa gelu jëkkër yow est-ce que di ko dugg te ko góor ki soo amee ful torop bés boo ko wonee jabaram mu bàyyi la am na loo xam ne kenn du ko def xale jigéen ñi arrêté leen. Mhm. man de moom sama territoire man. ah ah ah ah. ah. sama tëj laa la wax de man sama jëkkër wax na maa maa yow yaay man maa yow ba pare. mais Pendo man mën na la takkal keneen de. déggoo li ma la wax mhm. man laa wax mbaarik faayaama ak ma gàmmu faayaama mi ngi mi ngi mi ngi seetaat. Mhm. nee na maa maa yow yaay man maa yow. jàpp ci yow dëgg-dëgg moo jàpp ci man dégg a loolu ba pare. kon fin. tëj ba tëji jot. wóor man bu keneen ñëwaatee sax ragalu ma loolu man moom dafa joom mi fi ñu toll nii mm-hmm. léegi kan ma ko war a jommal yow ah doy na waar am nga jabar ju yaru mm-hmm. nga teg ci keneen a mm-hmm. <laughs> xam ne ku yaru ko rek boo ñëwee foofu kooku dafa ni tekk dafa sekk dafa yaru waa léegi man ma raakaaju léegi sama jëkkër ban façon la war a amaat kon kenn xamul dañu waxante dëgg dafa intellectuel ba pare yaru man ma sànneeku ba pare doon <laughs> géwél piir <laughs> da rax ñeeñaw xaritoog law bay wala damay laaj sama jëkkër moom xanaa kon moom moom bëggul boppam jàmm su amee keneen lu fay wut ak fan lay toog faatu man dama kii de dama collecté de tëj nañ ba tëji jot dama seeg si boobu moo njëkk a tëj Pendo association bi fan ngeen ci tolloon ban la mosoo bokk benn association artiste wala feccikat yi seen association mosoo si bokk ma ci benn association man du ma feccikat mm-hmm. non non comme ni nga nekkee ak ñoom ay xarit. ay non benn association. non non non mosoo bokk tamit ci seen groupe bi tamit dañ ngeen. bokkuma groupe bokkuma association. Mhm. bokkuma ànd dox daje. Mhm. bokkuma dara. Mhm. man c'est la première fois. groupe buñ ma mës a boole génn naa. ndax groupe. yi fay am ci biir non sense. te man du ma jël non sense. Fatou Mbaye. nit boo xamee ni nga mel. dafa am yu bari yoo xam ne da nga ci génn dama génn ci yooyu yëpp. bokkutuma fenn lu ma ni dugal ma génn. tuuru fa meeg yëpp ma ko man dew ma tuuru famille. parce que gis nga ne loolu mooy avantage voilà man loolu laa gis ne moo lay noppal. Mhm. bokkuma tuuru famille. Mhm. bokkuma tuuru dara. Mhm. bokkuma groupe maam groupe xarit yi ma bokkoon yëpp dama ko génn. parce que la fa am non sens dong fa am. lu dëgguwul. franchement te lu dëgguwul man bëgguma. bu ñu ànd nañu ànd mu sincère Fatou su ma la dara. dama jël wax na mhm. mais du ma du ma wax ci kaw wax ci suuf daf may sonal mhm. te fen bokk na ci li nga xam ne dama ko bañ bëgguma mhm. ko nga ni ko noon noon noppalul soo nangoo lii la yàlla dogal ci man kon noppalul noo ko waxee noon noppalul noon noppalul boo gëmee ne lii la yàlla dogal ci man ngay nopp bàyyil bàyyil bàyyi euh, man fetal fetal gu ma fekkee soxam xam tuyam di ma jaaxal yàq der gi ci réew mi xanaa gëmatoo yàlla tàllal c'est vrai léegi li ma waxoon noonu wax naa ko yaa deux ans. Mhm. mi ngi doog a xew. Mhm. xanaa gisoo whatsapp nu mu baaxee di dajale famille. Mhm. yow noonu nga dugg fa toog rek ngir tasi audio. am na ñoo xam ni ci biir whatsapp yi rek lañ nekk pour saa séddale audio yi rek lañ fa nekkee. te ojo yoo xam ne bu génnee def bomb bu génnee yàq lu bari jot a génne. du dëgg. parce que koo xam ngi toog te ragalu loolu. mais Sénégal foofu lañ toll. moo tax ku yabul rek defaruwaat moytu. Mm-hmm. waaw man defe laa ko teg moytu rek. Mm-hmm. Pendo sa carrière fan nga ci tool nii. nii nii nii nii maa ngi ci préparation. kon ko kon léegi nee nga way bi show too ci noonu parce que. Ah, affaire yi man damay génn de may maa ngi dem de. may dem mais mën nañu xaar nga nga arrêté. naa jaar naa jaar yoonu jawbe bi. Mm-hmm. waaw naa jaar jawbe xam nga waxoon naa ko fi ay jamono ñu foogoon damay kaf jawbe laa jëm. Pendo gis nga sa rek nee naa leen lu duf ci nag bi yëpp xaju ci cin li ndax sama mag ji ndaanaan la. universel la su ma ñëwee ci moom du ma doyal du ma xaaj te du ma pare lii laa leen indiloon tey nii laa leen koor gi nii laa ko defee su ma ndogoo ba pare rek parfois damay ñëw ndogu ci sax nag dem seet si naan bi waxtaan ak moom xool lu ñuy dundee ci koor gi laf cat tubaar fa kàlla macha allah ngeen àndoon ak seen doom seen xarit Fatou Mbaye masa tak masa yer ndaak liw bi liw bi ngelaw li sama mag sama xarit moom mooy doole nag ci koor gi gis nga di ma def may belli di ma def may jongo ma en face Masaliku Jinaan rek fa la nekk beneen bi Cambérène ci rond-point Poney boo ñëwee rek loo bëgg dala koy jaay gis nga Pendo fi mu génn sama mag ci lan ngay wax. waaw Fatou Mbaye maa ngi lay tàggu bu baax a baax sama rakk ji di la ñaanal nag ne la heure bi déwén. <laughs> ci barki Seydina Mohamed ci barki Serigne Babacar yàlla na la yàlla may koy tàgg taajal ndogu émission bi attan ko. <laughs> voilà yàlla na yàlla may koy taajal ndogu ndax il est temps nag jot na nag Fatou. jot na mhm. nag jot na nag waa ki fi ne. Mhm. ko sama ginee na nga fëgg. mbaa ñu daal ji buntu bu fëggul bu ñëwulee man mën naa joxe sama lancé sama appel ne leen dama koy jaay. Mhm. du dëgg mooy temps Ah. xale yaa ngi def xool ñam jamee ngi def. Ah, macha allah kenn du moom Cheikh Medoune. <laughs> Cheikh Medoune xale yaa ngi def de. Mm-hmm. Fatou may jëkkër xew na de. Mm-hmm. naa ngi way wax. Mm-hmm. xew na. Fatou xew na. <laughs> loolu lay tàggat lay tàggat naa ngi tàgg waa sans yëpp di wax. <laughs> internet yi yéen commentaire kat yi bu ma kenn waxal dara bàyyi leen ma rek ñaanal ma ngir yàlla ma a suul li rek leen ñaanal leen ma. maa ngi tàggu ñëpp ah di wax Masata ak Massa ndaak bàyyi Modou ma dama waa jooju tubarkal nee naa ko yow ku bëgg jóg day ànd ak yow mm-hmm. tubarkal masha Allah ku bëgg daanu nga jox ko loxo bu geesoon na te ne yow a te masataak masa en ak yow la mm-hmm. liw bi liw bi ngelaw li la bàyyi Modou Kane maa ngi lay tàggu waaye maa ngi tàggu sama mbokki jëkkër yëpp di tàggu sama famille bi nga dem di taaj ndogu léegi rek incha allah mm-hmm. maa ngi tàggu sama jëkkër tubarkalla masal ndax yaa ma dooleel nag ndax yaa ma ni demal nga dem def ko mm-hmm. da def ko ci ci doucement mm-hmm. na ni dama am leneen du doo ngay dox mbaarik faa yaa defe naa ni nii ma ko defee baax na kalmos na daal kalm naa léegi dama koy njar nee na ma dee ko njar nag <laughs> njar ko amoore njaral mari fayama <laughs> waaw mari fayama nee ma naa ko njar njar naa ko nag mbaari <laughs> maa ngi ko njar léegi ndànk rek laay wax doucement nii comme aw ma woon di rajax-rajax <laughs> léegi am na dama naan nii waaw dëgg la kay dëgg la maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp waat àq ne leen pour li ma wax bu dëngee man la tubarkalla masala waaye bu jubee tubarkalla masala ci yàlla sunu borom la di wax ñëpp baal leen ma àq baal naa yàlla yàlla boole baal di nuyu waa sans limite yëpp nag yanqoo ba doo mu ngi noonu doo génn